sunu alal ci loxoom lañ ko teg li nga xam ni moom mooy jàmm réew mi aussi ci loxoom la nekk ndaxte ku yore doole yow yaa mën a indi jàmm kon ñu ngi koy ñaan ci responsabilité bi nga xam ni moom la am mu dawal li nga xam ni moom moo di yërmande comme ni ko kilifa diine yëpp waxe démb ci euh, grande mosquée de Dakar déglu nañu li nga xam ni moom la kilifa diine yëpp wax imam yi aussi de Saint-Louis fu nekk sànni nañu kàddu jëmale ko ci li nga xam ni moom mooy jàmm réew mi kon réew jàmm rek moom moo ko jikk ñuy ñaan ki nga xam ni moom moo yore lépp te Sénégal jox ko ko muy président de la République na fexe ba jàmm jooju instauré wu lépp loo xam ni lu yàq la njaboot gi nañ ko bàyyi ñu ngi def déclaration bi nag ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ASC bu Tëngéej imaam yi aussi dugal ci seen kàddu pour rek jàmm dellu si ñi nga xam ni ñoom ñoo di xale yi am nañu puttaxaloo ci seen biir ji def naka su dul noonu loolu bokkul ci li nga xam ni moom mooy indi jàmm borom alal yi seeni alal buñ ko laal li nga xam ni moom moo di boutique yi buñ ko dajji loolu lañuy ñuy ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñuy doom nañu calmé wu incha allah bu ñu calmé woo rek yàlla dina indi jàmm.